Bonsoir asalaamaaleykum sama gars yi j'espère que yéen a ngi si jàmm man it maa ngi si jàmm dal leen jàmm seen seen Like Mobile votre chaîne de technologie tey day ñëwaat pour présenter leen benn super astuce bu am important si euh, seen téléphone avant ça nag euh, bu ngeen seetloo euh, lu tolloog dix jours mu ngi nii dugaluñ vidéo voilà c'est parce que jamono yi màggal gi moo taxoon ak dañoo xawoon a ñàkk ñàkk temps rek moo tax ngeen doog dix jours yoo xam ne gisoo leen euh, ñu def benn vidéo mais ña ngi koy jégalu baax di leen wax ne di leen commencé waat incha allah di dugal vidéo yi chaque deux jours wala trois jours comme nañ ko daan defee tey astuce bi dafa jëm si YouTube voilà léegi parfois da nga gis koo xam ne euh, day yor YouTube am di seetaan voilà léegi moom day toog man euh, mën a yor YouTube am guddi di seetaan mu toog mu mu toog ba mu yàgg rek man mu jeex ay nalaw dikkal ko maanaam mu nalaw léegi YouTube bi day day day di dem léegi yow boo yeewoo da ngay fekk ne sa bët bi vide na parce que li waral mooy euh, da bàyyi YouTube bi maam vidéo bi nga xam ne bu jotee automatiquement YouTube bi maam day day day day fay maam YouTube bi day day bu fekkee ne tamit guddi nga nga def man nga xool heure bi nga xam ne heure boobu ngay commencer di nalaw nga activer ko heure boobu jotee rek automatiquement bu fekkoon YouTube nga nekk euh, pause euh, loolu dina waral sa bëtër bi euh, du du gaaw bi boo yeewoo léegi dañuy dem directement euh, suñu YouTube pour bi leen astuce léegi bu ñu demee suñu YouTube léegi ñu dem si paramètre léegi bu ñu demee léegi si kaw am na fu mu la defal paramètre généraux nga cliquer ko. léegi boo cliquer voilà bii da ngay fekk euh, ñu active euh, comme que ñun dañ ko activer ba pare léegi mën nga fekk mu désactiver léegi yow da nga koy activer léegi boo ko activer boo ko activer nii lay mel léegi da ngay cliquer fi mu la bindal na ma rappeler de faire un pause voilà léegi nga cliquer ko léegi boo cliquer fii yow yaay tànn temps bi nga xam ne moom nga soit heure boo xam ne euh, jot na rek bu fekkee ne da nga nekk YouTube automatiquement YouTube boobu day pause comme bu fekkee ne da nga commencé di seetaan euh, benn benn vidéo vidéo bi tolloog une heure de temps quinze minutes fu une heure de temps quinze minutes jotee rek automatiquement YouTube bi day day pause voilà loolu euh, dina jàppale bu fekk ne tamit heure boo daf fekk nga nelaw euh, voilà dina tax ne sa batterie bi du gaaw a vide léegi fii yaay xool bu la neexee mën nga ko def quatre heures de de temps mais ñun dañ li ñu ko defoon mooy une heure de temps vingt minutes léegi day def une heure de temps vingt minutes léegi ñu ok léegi bu heure bu nekk YouTube chaque une heure de temps vingt minutes bu jotee euh, YouTube bi day pause loolu dina tax sabateur bi euh, dina euh, dina dina dina économiser sabateur bi ba mu tax du gaaw vide léegi boo xoolee troisième quatrième trois quatrième option bi maa ngi lay defal appuyer deux fois pour avancer ou reculer comme da ngay seetaan benn vidéo nga bëgg vidéo bu gudd nga bëgg di avancer voilà fii mën nga tànn seconde yi bu fekkee ne da nga bëgg di avancer par cinq secondes wala chaque dix secondes nga cliquer ko voilà léegi am na premier bi mooy cinq secondes ba soixante secondes voilà soixante secondes rek mooy bi si gën a gudd lii nag euh, soixante secondes yi ñan lay enragé ñi nga xam ne dañuy seetaan chaque jour vidéo yu tolloog une de temps wala deux heures de temps ñu bëgg dégg avance léegi boo avancé automatiquement chaque avance boo def soixante secondes moom lay avancé voilà bu fekkee ne tamit vidéo euh, bi nga seetaan day gàtt mën nga cliquer euh, cinq secondes yi voilà léegi boo jëlee cinq secondes chaque heure boo seetaan vidéo rek chaque euh, heure boo seetaan vidéo boo avancé sa chaque cinq secondes moom lay déplacé voilà loolu nag yaakaar naa dina la intéressé léegi ñu dem si beneen option bi nga xam ne bëgg nañ leen koo présenter tamit si YouTube voilà léegi dañuy génn léegi bu génnee léegi ñu ñëw fu mu bindal économie économie de données voilà li économie de données lan lay lu mu lay permettre bu fekkee yow da ngay utiliser sa connexion internet nga bëgg euh, di seetaan euh, di di di si seetaan YouTube te sa connexion bi du gaaw jeex voilà boo xoolee am na fu mu la bindal mode économie de données léegi boo ko activer rek automatiquement yëpp day activer directement boppam voilà léegi activer ko. léegi boo ko activé voilà léegi yaa gis ne euh, yëpp da ngay da ngay activé automatiquement voilà mooy waral boo seetaan vidéo euh, si euh, YouTube di utiliser sa connexion sa connexion bi man na di bañ gaaw jeex parce que da nga ko def économie da da nga da nga da nga économiser sa connexion bi voilà yaakaar naa astuce yooyu noonu ñu leen présenté dina am si yoo xam ne eh, dina leen intéressé pour ngeen mën ko utiliser si seen biir YouTube voilà léegi foofu la yamale yemale vidéo bi di leen jox rendez-vous ak di dig daje si beneen vidéo euh, ak like bu bi jaa ngeen jëf à la prochaine